merci beaucoup Kajor am na solo Kajor euh, Pape ton avis par rapport à ça. par rapport ak euh, pré euh, comment dire sortie ministre bi ne day bon bon je me dis que la mooy pertinence su sinon bu fekkee ne bu dañuy wax ne génnee benn liste ñu wax yan yan média ñoom ñoo. Mm, ñoom la état reconnaître. ah ñoom la état reconnaître bon assise de la presse ñu fi def il y a quelques mois bon je me dis que c'est quoi la pertinence sinon sinon dafa am chevauchement code de la presse bi aussi tamit wax na si mhm. nga xamante ni gars yi xeex nañu ba ñu euh, bon il y avait des luttes pour ñu pour ñu pour ñu appliquer ko et tout je me dis que la mooy pertinence bi quoi parce que moom dañuy nekk dañuy nekk peut-être di def à reculons tout le temps euh, bu fekkee dañaa defay ay assises il y deux mois après le ministre génn boo def le même discours que soit mu nekk assise bi nga xamante ne presse bi yëpp ñoom ñoo ko def ak ay texte mhm. et puis déclaration ministre bi bon la si la si la si pertinent bon je me dis que loolu situation bi yëpp c'est à en fait de des médias sénégalais dafa jaxasoo de telle sorte que ba nga xamante ne pour ñu lijjanti ko dina métti torop torop torop parce que victime principale bi ci lii lépp mooy presse classique. Mhm. mooy victime principale. pourquoi moo wax loolu mooy na Mhm. mais da gis ñoo xamante ni ci kii bi lañuy ñuy jógee mhm. par exemple site internet yi mhm. ak chaîne YouTube yi nga xamante ni c'est à profusion ñooñu ñooy produire euh, yenn type de personnes yi wala ñenn wala ñoom ñooy vendre ñenn ñi léegi presse classique bi nan lañ ci nekkee victime moom mooy dañuy jël ñooñu sans expertise sans ñu xam ne personne ressource nga donc tu peux parler aux médias saa bu la neexee lan ñam ñoo ñu ko vendre moom mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk presse moderne bi moom mooy ñi nga xam ñoo nekk seen YouTube yi wala wala site internet yi donc pour man presse classique bi victime la si loolu. quant à décision ministre bi wax ne bon dafay jël liste bon man xaw ma si yan critères lay tënku pour pour ne dafay classifier dafay génne liste boo xamante ne. tel euh, tel média voilà tel média xaw ma parce que c'est très compliqué. Mhm. pour nga bëgg a xam mën média mën na ñëw ñu ne waa da ngay laaj cinq journalistes wala dix journalistes yoo xamante ne am nañ contrat mais mën nga génne ay contrat yoo xamante ne bon voilà reposé wul si si si si dara donc moi je me dis que. man a ma man je suis très pessimiste si euh, avenir presse foofu franchement. Mhm. si kan moo war a nekk journaliste kan moo mhm. warul nekk journaliste euh, kan moo war a nekk média ku warul nekk très pessimiste. très pessimiste parce que il y a des influences il y a tout et puis bon à, la limite je me dis que il y a pas parce que assises comme ni ma ko waxee assises yi ñuy fii et puis il beaucoup euh, de la presse muy fii mais loolu carte carte identité presse bi muy fii parce que dañu doon wax ne avant. Mhm, pour bi nga yor ko bon. Euh, man am naa benn benn xarit boo xamante ni c'est un journaliste moom dafa yor carte presse ñu wax ni carte presse dañ lay reconnaître mais on l'a on l'a roué de coups comme pas possible si manifestation yi passé pourtant euh, amoon na coup voilà sa carte donc tu te dis que mm-hmm. tout ça soo ko xoolee mm-hmm. bon tu es tu es tu es pessimiste là voilà.